am na lu xewati rek. <laughs> waaw Pape man may seetaantel. ah yow ma ne ma mos nga da ngay seetaantel te mosoo def nii xam naa la <laughs> xam naa la. <laughs> man de télé laay seetaan. seetaanoo eh, télé baax na. waaw Papa. Hmm. waaw man damaa bëggoon. waaw année bii di ñëw. Hmm. Papa noonu. dama lay déglu di. Hmm. kii yóbbu ma Canada ma dem seeti. sama grande la waxoon am na loo bëgg. waaw fa laa bëgg koy amul problème. waaw loolu koy bu soobee yàlla waajal rek. boo sa yaay yëg nag ndax bu ko yëgee dina mën ay wax. Mm. waajal ni ngay def te moom xam naa woon dina yaakaar ne man dama lay takk sax man. <laughs> man nag boo wàccee Canada moom dina. dañuy a bëri woon la wallaahi noonu la meloon de. ñu ne bëri ci kër a di waxtaan. waaw Nafi Mbaye léegi sama wujj ñun bañ commencé takkante yag na ancien model nga bu moy nouveau model bi li mëno ko mëno li di damay sey sey sey wa waxuma lool sax lan ngeen di wax ke iya. yow iya. doon lii privé ya, wax couple ñu lay ya, xëcc couple ñu lay vie vie ya ya dëkk ya. kan eh, ci nag man kay def yi a sa soxla te may nu dañuy dañuy waxtaan man kay wax lu wax dama ne dama lay tàggu ne la damaa bëgg a génn nii rek ah, waaw nuyu nu waa Taliba ah. waaw nuyu nu waa Taliba demal yaay mënoo dem lu tax mënu maa dem ñooy ànd ànd jëm fan toppoo ma de waaye bàyyi mu ñëw sa papa ngeen continuer seen waxtaan nag bàyyi ko jëm nga jëm continuer leen seen waxtaan bàyyi ma bàyyi leen ngeen waxtaan yaay say bët baaxul bàyyi ma dawalal la ko loo ko yónni yow kii du xale waaye yow tam. jëlaat leen ma li la waxoon demal yow ba demal. xaaral. toogu ma de continuer leen seen waxtaan. waa xaar waa xaar mu sol yére ñu dem. yaa jàpp xaaral kii yow tamit. continuer leen rek. maa ngi ñëw waaye yow tam xaaral kii dafa ma ko yóbbante ah. ma la ma la waxoon dégg nga. nijaay kii du xale de. yóbbante dama ko yóbbante ànd leen. yaa xaaral rek. ànd leen dama ko yóbbante yow tam xanaa dama salaamaaleykum waaleykum salaam. Eh, eh, eh, waay. Zeyna na nga def. maa ngi fi maa yaa jàmm. maa ngi am ah Zeyna ah, moom nga def ana waa kër gi. ñu ngi fa. jàmm rek. jàmm rek. an yaay. mi ngi fa. an yaay moom feebaram bi na fi wax na ma wax na ma wax na ma lépp ndeysaan. Mhm. wax na ma feebaram bi ni mu métteeg yooyu. Mhm. baa mi ngi tane. waaw mi na fi dal expliquer dama lepp lo xamanteni moy sa feebaru yaay bi mhm. waaw nekku fi nak dafa genn mhm. ay lolu jarul jarul jarul jarul ki jarul rus mhm. nak fi mom sa keur la man yaw ak na fi la yemale hmm, yaw ak na fi ben ngeen ci man ay bo amé soxlo diko neub wala nga am soxlo rus ko wax soxlo bi du faju papa li ngay def ci man diko def sama yaay hmm, moo tax damaa dem ba am kersa. Ah, ah. pour wax la sax suñu soxla. déedéet déedéet loolu kese la. Mhm. soxla moom boo ko defee fi nga ko war a def. Mhm. def ko feneen rek. Mhm. booy def lu baax doo ci am kersa. mooy li ngay def def ko fi ko war a defee rek boo ko defee fi nga ko war a defee walaay du am coono waaw yow nag kër gi def ko comme sa kër def ma comme sa papa ndax ni ma jure na noonu laa la jure te feebar yaay boobu incha allah rabbi lépp loo xam ne mën nañ ko ci dinañ ko ci def ba yàlla may ko tànn. la ah. ah, na xam naa ne comme na fi nekk te waxoon na ma ni mu yëf yi demee. Ah, ma kii rek. dama leen di bañ a sonal eh, yow tamit teel sa kër la fii amul loo fii ñàkk sonn. boo demee ngeen jënd ko ordonnance yi incha allah rabbi bu weer bi deewee dinaa jox na fi mu indil leen ceeb ak diwlin nag yëpp yu ci yëpp yu déedéet bàyyi jooy ba waruma wax merci li ma war a def rek laa def bàyyi jooy adduna bi am solo bàyyi jooy te nga dem yóbbu gaaw bàyyi jooy te nga dem yóbbu yóbbu ordonnance bi jënd na ko sa yaay ni ngeen ko jox nag ni ko ni ko docteur bi diglee ok ah, ok ah, jërëjëf jërëjëf néel ma ko baax ne ko xam naa dinaa fa jaar seet si ko ah, kay ok yooyu waay adduna ndeysaan waa ana ana kii waaw ñooñu de nee nañ jàdd nañ ci benn boutique bu nekk fii di jënd ay óor yu kenn xamut ah, xam nga Nafi moom dafa ñàkk fayda soxna réew waaye <laughs> ma ne loolu ñu def kat farata la jënd bu yére moom farata la hmm. ba nga ca tolloon noo daan def ah <laughs> xale kay faaw ñu sañte bale ñu sañte rek yàlla moo njëkk bëgg ci ci alxuraan nit nit dafay set civilisé solu kay loolu ci jaamu yàlla bokk na moom kay li ñu sol na baax rek <laughs> moom kay xam naa ni moom xaritam bi xaw na ba tuuteetee sax xar na tuuteetee mu nga fekk ko fi. kan la ñëw na fi léegi ndeysaan. waaw moom ana yaayam ji nu mujjee tane na. na ma ngay tane nee na billaahi ndeysaan nee na yaay jaa ngay tane waaye xam nga Sénégal bu la nee tane mooy tane olof rek waaw maa yàlla baax na. waaye nag nijaay mm-hmm. su ma sañoon lii nga yor nii mm-hmm. nga dimbale ko ci te yàlla tax. ndax fi Mbaye li mu may laaj xaalis bari na waaye xam naa ne du moom du pour moom ndeysaan xam naa ne lépp ci Zeyna rek su ma sañoon nag lii nga yor nga jàppale ko ci dimbale ko ci te yàlla tax fii kenn yóbbuwul dara lépp fii lay des te boo ko tanee da nga koy dimbale incha allah incha allah euh, loolu li ma ko waxoon rek laa lay waxaat mm-hmm. naa ko fii la yàlla yemalewul bu la yàlla booleeg Zeyna nga nekk ci kër gi bul ñu ñor lepp lo am ci soxlo da nga ñew wax ko buñ ci mëne dara ñu def ko ndax euh, euh, na fi mi gis na muy laaj xaalis bo xamni leer na ma ni jëfandikoo ko wa wa non la ñam alal yëp da na wara def nonu bo yoré sa doom danga ni wako jangalé alcorane ba noppi wala nga jangal ko diiné ba nga mëna nek koy jangalé dimbali ndax bo yoré doom yor alal te jangaloko dimbali su bo bu béro wala mu dem dëkk fenen du dimbali kenn te li ñu am yàlla mo ñu ko jox ñu ko suñu bop kon na fi mbay nak buy def lolu man dama ci contane rek dama ci contane wa legui loolu dal mom mom mom la fi don wax waye yalla baxna yalla naw yalla yàlla yalla yok sutura suturaam waaye yow <laughs> xana da nga teggi nat wala dégguma fa ni nga ni firikoo bi de. <laughs> firikoo bi xana dama lan mo jënd. dara neeku ci mi ngi fess ba tey. bii passé xar mi nga jënd dafa rëy. ma nga nee ci biir. ah mom koy waji non la mako ko waxee nee ah. xar moom mën leen ko jéxal mën <laughs> leen ko jéxal waye non la. non la mom bu ci bu manké rek nga xol li bëgg nak mhm. euh soy dem marché wër wu dee. nga duggaale ñoom sëy naa lépp loo xamante ni yàlla def na boo ko jëndee du yàqu seen kër na ko jëndaale yóbbul leen ko te boo ko yóbbu nag bu ko yóbbu bëccëg bàyyi bu guddi nga yóbbu ko dimbaliwaate dafay am sutura bu ko defee dinaa jox euh, na fi xaalis mu bàyyi leen ko ca bitig ba mu cay def ndekkeeg dañ ca def yooyu yàlla baax na na maa ngi dem foo jëm waaw dama am dama am dama am rendez-vous fële waay

neex na ma mais am naa ci fet mbeteel xam nga mbetteel bi mooy euh, on dirait que nii booy takk jabar ay boroom doomu milliardaires yi ñoom nga doon xool ndax sam papa macha allah ñàkkul dara teel a am teel ñu teral teel ñoo dugal fu baax te nekk ci sa liggéey di liggéey xam nga bañ a suma yaay dara bañ a ñu dara ñun ñi say rakk des fois damay génn sa ñu naan an sa rakk góor bi ndax non seulement cër bi ma jox rek dafa dépassé mais day nga mel ni nga xam man lan moo nekk suma xol mhm. ma ñëw defal ma ko parce que man Zeyna bëgg naa ko bëgg goo xam ni fonk ko fonk goo xam lu ko nit defal ci lu baax man nga ko defal mais lu ko nit def ci lu metti dafay mel ni sama karaw bakkan yi ngay xëcc kon boo xëyee rek tey en ma grande surprise nga ne ma lii laa bëgg a def ah jim man amatuma sa fay te bàyyee naa la ak Serigne Saliou. waaw mais petite sœur dëgg la xam nga Zeyna du question lu mu ñàkk sax. Mhm. question ñàkk bi mu ñàkk wala dara sax mais dafa baax yaru na et puis tey na tam buy wax posément lay wax mais beneen affaire tam daf ci nekk. Mhm. tey jii nii ñun gàlle fii suñu demee sax ba bëgg ko lépp yow la ndax fi nga ko teg li koy defal fi nga ko jëlee fi ko yóbbu bokkoon ak moom école xooloo dara jël ko fexe ko bu dugal ko ci xolu ñëpp donc mënumaa def lu dul lii nii rek moom en tout cas kontaan wax parce que gis nga Zeyna mënul ñàkk a bañ am lu baax ndax ku teral ndeyam la ku sonn ci ay rakkam la mooy leen fayal école moo leen di defal lépp Zeyna mën naa ne rakkam yi moom mooy seen yaay te loolu lépp pourtant xamoo leen ko li tax may sonn ci moom mhm. mooy fi mu teg ay rakkam bugguñu jooy dara moo tax lu ma jënd rek def ko ñaar lii daal grand loo ci mën na gaaw rek man ma xeeb. léegi nag xam naa la ñuy def. Hmm. yow da ngay dem nga wax moom. du ma dem dama koy woo léegi su ma ne ko ñëwul léegi soxla xam naa ko daal dañ. nga dem rek wax moom day daw ñëw ay ma kii fii su ko defee après ma ëffal leen rak tak ku yaa de. léegi yow demal ci boo ko woowee. bu ngeen tegee pare après yow nga ko. mais am na loo ma digoon de. waaw après. yow yow jox ma ko waaye. gérer lii ensemble bi laa lay jox. ah gérer lii rek yow. yaa ko wax nooy nag de. waa Jumel. yee moom bébé. bi ñëwal ñëwal allah. yow. yii. waaye ku ray. xees ray. boy nii profil laa koy def. ah jonga ma. waaw Poucy. bu ma sori nag. si ma lool xam nga yow da ngay sama xarit. sama jumeau daal moo ma fekk fii ma Cisco xam nga Cisco do sama do sama grand frère sama jumeau la. dëgg la sama waaye la sama partenaire la. waaw nag doo firi. firi naa <laughs> xam naa jàmm nga may doyee. am lu mu waxtaan ak sis daal neen la bëgg jabar c'est..? la xam nga sey. que dara Sey da doy wat dama la bëgg sis ko xam nga la la def dugg sama biir xol bi dugg sama biir xel mi parce que li ma doon rêve gën ko bëgg moom moom la ñëw defal ma ko heure bu ma yeewoo rek yam ci yow teg la sama bët bi sama xol bi ma gën a kontaan di bëri nangul ma ko fais-moi le plaisir s'il te plaît mon bébé <laughs> bëggum lu yàq suñu diggante de du am li nga xam ne lañuy def hmm. bàyyi bu ma demee ma wax sama yaay borom jurul laa lay waatal li ma la waxoon dara du ko dindi man ak yow bàmmeel moo ñuy tàkkale Zé boo ma doon dóor ba di ma diri sax taxul ma bàyyi la man soxlawuma nga bëgg ma yow man maa la bëgg. daw sama yaram bi nag. daw ma ci dara. deretu pikin gi. yow ma ne ginnaaw raay yii. <laughs> te damay waxtaan ak sama papa mu jox leen ci kaw appartement bi ngeen dem dëkk troisième nga indaale maman nga jox ko benn chambre bi. yéen nag Cisco ngeen nekk ci chambre salle de bain bi jël salon bi ma di leen lakkal comme ça. dafa yegg de eh. man dootuma fanaan fii. <laughs> sama néeg bàyyi naa ko ci kaw laaj bi. dootoo am fenn soxla man ci kër gi rek dootoo am fenn soxla. Hmm, ci kaw na. ci yow laa jëm. man tey xam naa fii ci kër gi maa ngi fi rek dootoo am fenn soxla. fi bàyyi ma wala grand frère ngeen waxtaan. ok. <laughs> zim zime zimo. Zeyna. Francisco. Euh, man maa yónni woon Nafi. Mhm. pour mu waxtaan ak yow du caagi ni nag euh, da nga ñàkk dañu war laa defal déet daf fekk ni mbëggeel buy ñëw du tàggoo tu comprends ba tax na ma bëggoon vraiment nga nangul ma doon sama soxla dëgg la euh, Cisco koy bañal ci àddina ndax nab naf yi moo ma fekk fu ma kenn bëggulee mu ma naf mooy ki may jàppale fekk na ma fu nekk mais dafa fekk ni sëy dafa doy waar te tey la ma ko wax ak may may moo waxtaan ak sama xel moo ma waxtaanee sama xel waxtaan ak sama yaay hmm. loolu gis mais est-ce que du yag dede du yag may ma ay fan neew rek inshallah wa d'accord kon baxna na hmm? yay man dal dama bëggoon ñu waxtaan balaa may wax ak sama papa. Mhm. mais nag waxtaan na ak sama partenaire ba pare de. Mhm. na mhm. nu ngeen waxtaanee noonu. ah. na fi mbay daa doy waar de mbaa waxtaanee wut ak yow waxi tukki. tukki lan. dama koo xam dafa bëgg tukki. moom yéeg ak wàcc rek. diglu rek ma wax la xam naa li ma lay wax. waaw yaay doo affaire tukki wala yooyu noonu. Hmm. déedéet du loolu yëpp. fii nouvelle bu naax la. ban nouvelle wax ma gaaw. man damaa bëggoon takk soxna. takk. jabar. <laughs> sama góor bi nag mi ngi may wan ne nag màgg na nag. <laughs> Eh, mu yow booy takk koy takk. man gisuma fi jigéen gisuma fi gel. koy takk koy takk. ah non xam nga man ay affaire jigéen ak gel yooyu moom nekkul ci man nekkuma ci yooyu noonu. waa takk <laughs> wax ma. waaye man daal Zeyna laa bëgg takk. Zeyna waaw ah loo ma daan defal ak di ma ko waxal muy neex tey ci raw alhamdulilah Zeyna ah boo ko takkee def li ma gën a hmm. maa la wax loolu xam nga lu tax hmm. Zeyna day xale bu sonn ci àddina xale bu am jom Zeyna jaay na ndox hmm. ngir dimbale yaayam Zeyna mbindaanu na ngir dimbale yaayam ah loolu boo ko defee def li ma gënal de. billaay jaamu yàlla gën ta màgg lool boo ko dimbalee ma jël. yaay loolu nag moom moo tax ak li ma gis na fi mbay ko jàppale xam nga di sonn ci moom tout le moom dafa bëgg Zeyna. Mhm. bu jëndee dàll jëndal ko bu jëndee greffage jëndal ko bu jëndee yére jëndal ko. kon soo ko defee rek nafi mbay nga defal loolu. moo tax nag ma ne dama koy takk jawax nag jaamu ci yàlla. jàppale ko dimbali ko. waaw ah, macha allah. waaye na xoolal. teg naa ci taabal ji un million. la ma yaay côté boobu moom. Mhm. bàyyil mu sedd. yor naa xaalis macha allah samay compte na del bàyyil man ma defaral ko lépp lu ma ko war a defaral lu jëm si seen kër. ba su ma ko takkee nag bu mu ñëw fii yow loo ko bëgg defaral nga defaral ko ko. ah lépp loo ma sax de lu tey lii ci dàq. yàlla na ko yàlla mottali saytaane bañ cee dugg te na gaaw amiin na gaaw ndax cat dafa sew amiin yaay loolu kay amatul ay xaar ay waay alhamdulilah <laughs> deful ndànk dama lay romb de nga raw ma man. waaye loolu moom mes laa lay def. non bàyyi li nga wax eh? saa ah. fan yii moom incha allah damay jël soxna. damay jël soxna. waaw waaw. nga xam ne bu ñu dalee ànd ba léegi doxaan sa ma gis nga def ko. nga dama dangay tax loolu moom ngay mooy Zeyna. Zeyna. waaw. sëñ ban Zeyna. moom Zeyna muy sama petite sœur bi booy copine am bi fii ñëw si gaal. Zeyna waaw. mais frère yow sa papa am sa yaay am. sooy takk doo takk koo xamante ni yéen ñaar tolloo ngeen situation ngay takk ay boy cas social yi nga xam ne dañuy dugg ci yow lekk sa xaalis après nga muy dem seen yoon. booy saa yi ma. waaye dërëm ak dërëm ñooy ànd. saa ay voilà bon oh, dëgg laa mooy loolu. kon yow da ngay dund affaire yooyu noonu fan nga gis armeeru géwél wala ñeeñu wala leneen ak leneen yow man sama papa bi muy démarré dafa amoon dara dafa amoon tus dafa yoroon fas la doon dawal fas. yëkki-jékki tujji kënkaayareem di xuus di xuus ba am alalam bii nii tey war nga ñëw fii di ma tegal genre wax yi affaire u base sii nii yu xew yi nii. en fait maa ngi parce que lu baax rek laa la bëggaloon mais comme que demee na noonu bàyyi mu seet. waaw mais non waroo wax loolu. ah sëñ Fallou sëñ Fallou. waaw jugal jugal ñu dem taxul. ne Waper, ya waaw. naka Santai sant yàlla bu baax. yaa ngi dal lu ya, baax la. gis nga damaa sonn waaye suñu réunion bi dafa yàgg ya, torop dem waay. da nga mujj guddee xanaa. palub chef de quartier. bëggoon nan ma ko jox de man mau, kan, baax ah, eh? mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm. hmm, na amu jàpp. waa gis nga de daal moo moo taxoon daal ma guddee tor fa torop ndeysaan. c'est vrai. waa Paa wuy ma. man tey dama bëggoon ñu waxtaan. waa jàmm la. waaw non jàmm la. alhamdulilah jàmm man bëgg soxna. ah. ah alhamdulilah loolu de loolu de mbégte la moom. xam ne daal jot na nag ma jël soxna. comme man maay sa taaw góor. Eh, loolu mbégte la. waaw. mbégte la xibaar bu neex la. kan nga bëggoon takk noonu. waaw mooy copine naf boobu di ñëw ci gaal yi. Zeynam. ah ndeysaan kii kii am tawat noonu. waaw voilà Zeynam est-ce que ndeysaan ndeysaan. moom laa bëgg laa bëgg takk. xanaa da ngeen daan génn. non pas génnuñu de. yow tamit dama mën a bañ a génne nit xëy na dama koy takk da ngeen ba noppi. waaw xam ne moom du ma bañ rek. Ah, comme man tey ñaar dañ ñaar ñoo koy seq te dañuy bëggante noo takk koo xamante ne waxtaanu leen bëggante mosu leen bëggante nga ne da nga koy takk loolu mënul nekk nag da ngay waxtaan ak moom ba noppi bu fekkee ni waxtaan geen ba juboo ci ay kàddu ñu ñu dem ñaani. waaw pas déedéet man dama jàpp ni comme moom yaayam dafa feebar. Ah. ñoom dañoo sonn. Hmm. man moo ko takkee warul mën bañ ñu ci kër gi ñu gën leen dimbali rek xoolay bëgg nag sonn bu mu tax nga def loo sonn tax mu def lu mu bëggul def nag balaa nga doon ñëw waxtaan ak moom da nga waroon waxtaan ak moom ba noppi bu ko defee moom bu kiiwee ñu dem loolu du dara takk ko takk kay moom lu baax la waaw mais man gëw ma ni dina bañ gëw ma ni dina bañ yàlla baax na yàlla baax ko man baax na moom baax na yaru na la loolu la waxtaan la moom rek bu moom ba noppi ñu dem wax ak sama yaay rek waxtaan moom ba noppi waxtaan ak sa yaay waaw ya, moy mooy yoon waaye xëy suba teere bëgg tak ko koo xam ne mosu leen waxtaan moom ah ay eh, sama doom ñu mat na góor nak waye nak jabar bokku la sey ngay dem te dugal genn dugal genn tak jabar diko fi baye di taxawal ci yooyu mom moom boo takkee jabar auto bi dama koy nangu jox la benen mm. ah waaw dama lay jox auto bu màgget bu ko defé xalé duñ la topp ah, yow tamit nag <laughs> yow ñu nuróon ma nekkee xale bii laa meloon <laughs> ñàng nag baax da inshallah na <laughs> naataana sey yaay waa jeex na akay waa kay Zeyna. na hmm. nga def. Ma ngi fi. Ba yaa ngi am sa yaay. sama yaay ngi fa. Ba mi ngi tane. Wa mi ngi tane bu baax Euh oote bi mala la nak. nag. Hmm. oote jàmm la oote salam. oote bo xamanteni ni bu ma contane la wax deug Yalla. waaw ya, li waral oote bi nak leen rek la. Yalla bi mu ñuy sàkk waxuñu ko mu sakku nu. te bu dogal ci ñun duñu ñoko wax mu dogal ci ñun. ba tax na sey fépp fo xamanteni fa la ko yàlla tudd. Ken munu ci dara yalla da koy def yalla da koy def lolou ki munu ci dara kenen munu ci dara. kokal la Cisco. wax mo fi Cisco de. kumpale hmm. won ni keur gi ana ba yag na fi lol sama xel nak mayon na ma meuna jël ñaarel waye bi sama xel maye ma jël ñaarel mayu ma fenn fudul yow mi ma jël la nga sey ci keur gi nek sama ñaarel ci biir keur gi. ba ngay tiit lolou lolou kuko deg dina ñaaw de. su ma ñëwoon seen kër di ñàkk fay di la doxaan mooy gën a ñaaw na mbay man maa ko jur juruma ana ma ni yaayam man maa ko takk takku ma li ma nangu li ma jaaxal kay mooy yow nga nangu baax nga bañ rek waaye bu dee ana mbay ak na fi loolu lépp loolu du ko du du looy lijjanti mën naa koy lijjanti. tonton Souleymane. Mm-hmm. man gisuma lu may bañ see yow ndax ku baax nga kilifa nga te yaa ngi may jàppale di jàppale sama yaay. danga maa def comme Nafi Mbaye mm-hmm. si biir kër gi mm-hmm. ma lay bañal mm-hmm. laa bëgg dimbali sama yaay loolu rek euh, wax nag bëgguma nga ko kenn ma ba ma lijjanti li may lijjanti lépp ba pare lépp sottee ñëpp daal di ko yëg loolu daal moo doon oote bi nag nangul nga ma alhamdulilahi rabbil alamin lii nag xeeb naa ko trop euh, soo demee mayu ma la ko nag lii deux cinquante mille kese la na ci na ci def li mu ci war a def ah. aywa lii <laughs> li loolu yàlla moo na ko mën loo ñu koy def bu yàlla ne woon dun ko mën dun ko mën yàlla moo na ko mën loo moo gënoon ñu koy def ci ay tànn béere ki ay ay ngoon ak ini masih apa, baax way ñu ma say baax yaalla rek la lay baax yaalla <laughs> baaxna ya, yaalla mm-hmm. ya, baaxna papa wa ba jamm la jàmm la du jàmm ndax euh, euh, Zeyna. Zeyna waaw. Cisco moom moo fa yebaloon pour may takk may takkal ko ko jabar. Mm-hmm. bi ma waxee ba noppi. Mm-hmm. Zeyna ni ma ah wax dëgg yàlla. Cisco mosuñu waxtaan ci mbiri bëggante te it mënuma sëy moom. am kay. Ah, waxtaan nañ de. Ah. waxtaan nañ de. parce que Zeyna man maa ko woo mu ñëw fii. Mhm. ma waxtaan ak moom ba pare woo Cisco. Mhm. ñu dem ci beneen salle bi ñoom ñaar foofu lañ toogoon di waxtaan. Mhm. man ma yéeg ci salle bi ci kaw waxtaan nañ de. bu fekkee wala ñu doon wax Zeyna ba ma demee di la may wax dafa ne ma papa man ko ah, ah, hmm? lii la ma wax. léegi ma gis situation bi nga xam moom la Zeyna nekk. Hmm. mu nekk situation boo xamante ne bu doy waar la. ma xam ne bu fekkee ni yàlla def na mu taxaw daaw neew ci taxawaalu yi xale yu góor yi mën nañ koo nax. ndax dina toll foo xam ci situation boo moytul bu ñu ko joxe xaaj laaj ko boppam mu joxe ko. joxe ko loolu dëgg la moom. Ah, sama xel nag daal di may dee ko yàlla defee noonu nag ma waxtaan ak moom bëgg ma daal ni bëgg na ma daal pour ma takk ko mu sëy ci biir kër gi donc koy doy na waar. Hmm? wallaahi doy na waar. ñu daal la ma ko waxee ma ne ko ah loolu de moom jaamu yàlla la. ndax dàq ki woon mu jëm àll moom dàq mu jëm ci biir kër gi benn moom kii la rek moom kay xam naa ne kër gi moom dina jaljali moom kër gi moom dina jaljali ni feeri law bi waaye moom ah on va essayer de gérer rek li tax nag ma lay woo di la waxtaanal yow yaay sama fayte te yow lépp loo xamante ni maa ngi koy waaj a def wala ma def ko ba noppi yaa ma cay wax lu baax daam sa papa laa mm. yaa ma cay conseil yaa ma cay wax papa nii la ak du nii euh, Cisco ak soxna Mm. moom xam naa ne seen yaay yaay bu ko sa yaay jege dina leen monté ba ñu yëg sama kaw. waaw papa dëgg la mm-hmm. euh, maa ngi koy rafetlu bu baax. te la sama sëriñ ba wax rek sëriñ Saali. lam ne woon lu dul jaamu yàlla moom. Mm-hmm. amu cag yàq amu cag defar. waaye it li nga bëgg a def jaamu yàlla la moo tax aw ma cag yàq. aw ma cag defar. nii laa ko xalaatee Zeyna bu fekkee nii ne bëggul Cisco. néegu sëy dafa xat. Mm-hmm. ta bu bañé a ci score nangul la mm. ça veut dire que ni kon bëgg na la wallahi dëgg la ndeysaan ta boko bayé mu génn dem trainer ji wallahi suba part de responsabilité bi ñun la wallahi wallahi dina doy wa na comme li nga wax peut être ñom duñu comprendre mm-hmm. mais man na fi may comprendre na bu baaxa a baax mm-hmm, mm-hmm. voilà so légui nak ah, man mom sama bakkan lay jaay rek xamna comme omarou mom ben bakkan la yor diko joxe man sama bakkan joxnalako moom kay nii laa ko xalaate ah. yow kay jaaxaloo ma sax waaye ñaar ñi nga xamante ni leer na man sa yaay de nit fay teewoo ñoo ma ci jaaxal. Eh. waaye nag yàlla baax na. ñaar ñooñu papa bul xalaat. <laughs> yàlla baax na. mais Cisco muy soxna. Eh. Cisco donte ko sama mag la. Mm-hmm. mais du ma ko may fu mu lay jàllee bul xalaat lii la. bul xalaat xam nga borom kër yi. Mm-hmm. doom bu góor ak doom bu jigéen yaa koy yaa koy jox sa bopp rek mu mën a waxtaan ak yow. rek ma mënul dégg ko rek. daal yàlla na loo ci def daal pap na gaaw rek. moom kay moom bu soobee yàlla. man moom bu ma xalaat ànd naa ci. jërëjëf jërëjëf yàlla na la yàlla fay. ànd naa ci baax moom yow doom nga boo xamante ni bi de. Mm. wallaahi exemple nga ci kër yëpp. ndax doom bu góor ak doom bu jigéen euh, bu fekkee ni doom bu góor mënoo dégg ak moom te mënoo dégg doom bu jigéen da fay baax ñi waxtaan ak seeni doom. Mhm. ndax bàyyi doom war no réeroo. am de way naan duma sa morom ak sa bàyyi la lolu amul saas. <laughs> Ah, loolu amul fenn loolu amul fenn jërëjëf jërëjëf. kontaan naa kontaan naa ci yow trop kontaan naa ci yow wax dëgg yàlla. Mhm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waana. waaw namm naa la. aywa aji maa la raw. dañ nga noo de. dëgg la kay. mais yow ànd doo dem fenn sa kër rek ngay toog <laughs> maa ji man fu may dem man daal gis nga ko saal bi taal télé seetaan boo fi jógee dugg sama néeg tëdd. moo tax doo yëg dara dëkk baa ngi toj. Ah. maa ngi doon bëgg a ñëw sa kër sax. déedéet kay. wallaay Cisco mooy takk jabar. Cisco mel. ah loolu fort na. ku lay takk. Zeyna. gént naxuma. ci la noonu. wala baayam moo koy takk. aji yow sa ndof gi nag ndekete day yokku de Cisco sama taaw laa la wax de bu góor mooy takk Zeyna Fall. baayam ma koy takk. yow nag aji yow nag xamoo nag ku ku wax ak yow de yow dafa mel ne dangaa sax noppi déggu ma. ma am lu ma si leer nañ. waaw loolu lay niru nag nga ni. yaayam ma ko wax de man yaayam du nëbboo moom ma ko wax de. <laughs> waaw juumoo nag yaayam moom bu la waxee loolu loolu mën naa nekk xam nga lu tax yaayam aw yaramam moo feebar waaye xelam feebarut dofut jinne jàpp ko pantongalu ko dara xel mi dara jugu ci kon bu la ko yaayam waxee mhm aji dalal rekk loolu de man maa koy defanteeg Souleymane man maay ki koy lijjanti dalal rek te Souleymane na ko leer ne bis bu takkee Zeyna Fall wallaay xoolal Zeyna dugg ci biir kër gi du fi nekk ak man ndax Zeyna xaritu doomam la moom na fi suba ak ngoon guddi ak bëccëg. góor yi tey day ngi nii. aji loo ma mës wax lépp li ma wax nii tey moo ma ci gën a naqari. Eh. eh waaye ndaw Samba nga ne dangay nelaw nii yow yaa bon yaa sew yaa mees yaa yées xamoo li xew li xew xam nga ko moo tax nga ñëw beegu nii ci kaw lal bi ne jaani ñàngoor yow sa doom di sa taaw yónni la nga war ko doxal li mu soxla lépp amoo leen la def lu dem suuf ko takk Zeyna Fall yow Souleymane yaa bon yaa yées yaa xam lu bon man lu bon te di ko def yow nga ne dangay takk Zeyna Fall suba ah kon kay aji faal juumut. dinaa la aji faala ma ko wax. te nee na ko ko wax. ma musoo wax loolu. musta wax loolu. Zeyna musta wax bëggul au contraire yow yaa dem naan xelum Zeyna naanu yuuram génneem xelam ci Cisco mm. waaye Zeyna Fall musu laa loolu. Mm. yow ndekete xoolal. Super nga heure bu ni xol di gis di gis yenen yenen bubu ya bon ya sew sa jikko kaani xeeñ ji nga yor dama ne nga nopi la wax waaye ñak jom ak bon motax nga tëdd fi naa mu suba koy tak ku sa dom naroon tak nga dem tak ko yor xana sis koo kon mun ko doon dóor ci mbedd mi do ko fajeeli dóor ndax lu bon li nga def ak lu ñaari waaye jappal ne àddina bi ñepp nak danañ la mbamb de yow gatte go soup ñooy wa palman la waye mi xolal yalla dafa dogal Zeyna Fall kër gi du fi dugg redd buntu kër gi rek du ko romb yow ya bon ya sew sim soxna du nga tej buntu bi wala sa papa di deg wax jadi xam fi mu waye waye yo, ba yaay yow la ngeen ngay teju ay buntu ak sal bi ñu indi fi ni la mo xew xara rek ba soxna tej ba ñëw top ba pare dama bëgg na ngeen deglu ma Cisco soxna dafa am nouvelle bu ma leen di annoncer du neex nag ndax nouvelle bu naqari la du neex ci yow du neex ci soxna rawatina man mi toog leen ko wax. waaw yaay lan la ba jàmm. maa ngi ñëw te yow Cisco yow laay waxal na nga dal nit day dal. yaay wa waa taxawal rek te lu mën a ñëw rek mu xam ne lii yàlla la seen papa. Waron tak jabar sabula Ya yow ya daal da ngaa neex quoi yaay sama pap buy takk jabar muy le problème ci loolu yow lan nga namm yaay yow ni eh, ya, lay kan ya, eh? eh? defal lu ne Lu bëgg yang ngi koy am ci kër gi am nga salon ci kaw am salon ci suuf kër gi amoo fi benn sens interdit foo tok. la est-ce que xam ngeen seen papa kan la takk kan la Zeyna Fall. lan Zeyna Fall <laughs> non non non loolu nekk moom yaay waxal lépp bàyyi sa bàyyi sa waxal lépp ba mu des loolu noonu sama papa ma mu dem takkal ma Zeyna Fall moom mu dem takk Zeyna Fall loolu ay fausse information la ay la génnaatal nga dem xool vérifier sa information boobu noonu. dem ñaan loo ko jabar mu takkal ko boppam. <laughs> non xanaa Nafi Mbaye yëgul lool de. ah man na koo yëg de ndax ñoom ñaar barki bu fekk naa leen ci biir néeg bi ñu tëdd di def nguni nguni nguni may yegg si laajte lan la lu ngeen di wax mu ne waxuñu dara ma jëm koo jëm suuf ñu ne waxuñu dara di reetaan. non non man xam la laa jàpp ama jàpp ne sama papa ni mu ko nëbbee nëbb la ko nëbb soxna noonu la ko nëbbee Nafi Mbaye parce que man ak Naf mbay amuñu nëbbu non non lolou mënul nek way yaay waxal leneen way tamit nak sam papa di li bëss bu fekkee ni dëgg la dako def dama koy sour adina ak alakhirah nit mënatul wax bama jaxarlo ak mom ci kaw suuf. yow waaye mu tagal na ñaw mu dem di woo tagal ay na fi may yow yëg nga li sam papa def. sam papa def. que papa bi dafa dem takkal boppam Zeyna Fall. Hmm, kañ la. loolu kañ la ngay wax. yëguma ko. na fi mbay moo fontoo. yow ak Zeyna ay gaañ ñu dugal nëbbante. après la laaj. yow ak paa bi aussi c'est la même chose même complicité bi ngeen am. Hmm. gis nga bés bu ma lu yëg nga ko yow di ko nëbb. tu vas le regretter. lan da laay regretté si ko. xamoo looy regretté. eh xoolal bul fi indi peleñaa de man ak yow ci biir kër gi ñoo yaroondoo donte que sama grand frère nga sama gaayen nga musuma daw dara ci yow mais sam papa moom moom xolam ku ko neex lay bëgg Zeyna Fall moom moom xolam ku ko lay bëgg et après. non mais loolu mooy sa wax ak man. lan nga bëgg ma wax ko leneen Cisco. Nafi Mbaye yow man je croyais que moment yi nii danga may soutenir man. beneen bi mooy sam papa takk na Zeyna Fall bu ñëwee ci kër gi na ngeen ko may jàmm. jàmm ci kër gi. waaw bés bu dugg see ci biir kër gi. jour boobu lay pare pour am jàmm. ndax la na nga koy rey. man maa la wax loolu. mbaa danga ma ci teg mu doon ñaari bàmmeel yoo dendale man lu neex sam papa neex na ma. ah bon waaye. d'accord. ok am problème. waaw mais frère. man de ci suuf ñu ne ma yaa ngi ci salle bi ci kaw. dëgg la moo xew ba nga toog fii. ah booy de instant yi jaaxle rek. jaaxle. billaahi jaaxle rek. lan moo la war a jaaxal yow doomu yaay. booy affaire Zeyna rek. Zeyna. billaahi. mais man damaa bi féete na boor. féete nga may wax ay waxu Zeyna nii. non sama papa mu yónni ko pour mu dem takkal ma booy bi nekkati paa bi moom dafa dem takkal boppam booy bi. comment. damn. mais luy loolu. di ko nëbb. maire bi moo génn ñu annoncé ko maire bi ñëw wax ma ko booy. chat mais nag frère l'autre fois bi may wax ay waxu Zeyna xam naa booy bi bu baax a baax a baax parce que booy Zeyna réglé wul. booy bu dëngankoo moo tax nag ma la doon wax ni takkal doomu borom xaalis wala affaire yooyu noonu juste que dama bëggoon nga fàtte booy bi mais xam naa ko bu baax mais nag góor yàlla nga en plus tamit gentleman nga te bul nangu di am tiraillement sa papa bu la ko jigéen jaral bu la ko xaalis jaral wala bu baax da ngay def saa waay. booy xanaa xanaa xanaa xanaa beneen papa kay sama papa moom booy dama ko suur suur naa ko àddina ak àllaaxira Shut bene il papà Shut up. Damn. seet. Seynabou fii lay sëy. Seynabou waa. ana mu moom. Seynabou dafa àndoon ak sam papa dañoo génn. dafa génn. waa. xanaa daa la yoreel. bu ñëwee nga ne ko oustaz Sarr ñëwoon na fi. Hmm, kon yow sëriñ. waxal ma ko loolu rek. ba ba muy sotti Zeyna am na lu muy nëbb kii dama ko war a dab sax laaj ko numéro xaar Aïda Samb la baadoola baadoola lay don dama tit man ci say way Samba lo li lan la mo mbacke mo gëj naa ak ñom tuuti rek wa léegi yu demee na ñoo ma mel min dalé ci Amérique gi nag mo ngi dem mom teral na la Samba la dang ko way nak siree nga ties maté nga anen siree ñu bolé ñaan ñi ci gën lu fas yi bari bari nan jam ñi bobbi bi kenn du yow ci mim réew yow xam nga ni réeruloo puso bi d'accord waaw ok àddama incha allah da dem espoir ok mag ji yow na ngay fekkee nit di wax téléphone nga ñëw toog te yow yëpp sama néegu papa bi da koo mënta bàyyi yow sama néegu papa mooy sa seetaanukaay télé doo toog fi nga seetaan fi wala nga dem ci fee wala nga dem ci saal bu mag bi. li ngay wax yëpp wax ma ko. lan la. yow xoole nga yow ba Zeyna Fall sa yëg sama papa. ngay continuer di wax naan nit ku mu bëgg lay sëyal te man lu ma leer naññ la ne Zeyna Fall dafa liggéey sama papa. ok ce qui veut dire lu leer laa la wax. c'est sûr c'est sûr parce yaa mën a fen yow bàyyil ay fen yow munoo ŋaan Zeyna Fall wadd soxna. ma ne la maa ko fekkee tey am na benn sëriñ bi fi ñëwoon di ko seet. soxna yàq nañ la. yow nit ñew fi di set Zeyna Fall xamoo jaayam la xamoo lamam la xamoo mbokam la nga ni sëriñ la gis nga man seen yi ngeen nek seen affaire manigance yow ak sama yaay Cisco man newuma ci tay bu suba lima waxon mom lay waxat waxaat Zeyna Fall bëggul Cisco sama papa la bëgg day and ak mom oy la problème yow lolou nga gis way fils mo la paix nga ram lolou nga gis kon baxna e jugal sama wet bala ma laa mbéj seytaane bi te sama nek papa bo ngay tok di seetaan chaque jour nang ko salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. an bàjjen Aana. bàjjen Aana dafa génn. dafa génn waaw. nekk doon naa. eh aaju moo ñëw toogal yow yow toogal. yow. waaw ah. maa yow fen dan la ko nàmpal. lan mooy sa problème yow ba nga bëgg a dugg ci kër yëpp di fen rek di fen rek lan mooy sa problème man maa la dese man. xam nga yow bi ñu demee police di bind sa tur xaw ma lu ñu ca bind élève xaw ma élève xaw ma lu ñu ca bind sa kàddante dañ ca waroon bind menteur spécial fenkat nga kon bi fu ma tur tourné ñu ne ma yëgle nga sama xew man maa la yëgle wala xew yow bi ci ci biir kër gi fekk fi Anna Mbaye toog nga ne ko man maa wax dama lay takk jabar dama la ko wax man maa la bu fekkee nit lu ma xamal nit wax ko moytu ma de li ma la xamal bëri na de réew yi nga tukki yëpp dañ laa raful Amérique yi géej moo ci mujje da nga doon sur doom di sànni ci mbedd mi Amérique yi nii la fut yàq say kayit jamay kay ba nga fay loo doon jaay yàmbaa nga doon jaay ñu indi la loolu nit ñi xam nañ ko doxuñu ko ma xam ko te teg ci sama tànk waxuma la ko ah, li nga nekk ci koñ yëpp xam nañ ko ngay def sa kanam gu rëy gi ñu rek palaat yi xew ngay fen rek yow sa ras yi ku la bon nga jamay kay nga nekkoon xaw ma naa Espagne di fa jaay dorog ba nu indi la ngay am ay doom di ko di di sànni man nag bu mën a desee xam nga lu ma lay def dama lay rey baa mu yóbbu la police ñu téel ma la sa gémmiñ nga tëj ko bis bu ma la te wala ma romb fenn ñun tudd nga sama tur Souleymane ci mbedd mi tissooli sax na nga tissooli sax est gu ci nga seet nga may def génne sama kër joxoon doxalu ngeen sama kër fankat bi nga doon fii daal loo fi wax loo fi def nu wax ko ah loolu mooy def nu wax ko waaw jërëjëf jërëjëf waaw yow yaa ko fante di nga génn kër gi nag wala fi gisatee dinaa la dóor ba nga defee ne moom ay rat yow li nga xamante ni lépp ngay def pédophile nga pédophile nga lépp ngay def ci biir koñ bi ñu xam ko bàyyi la fi maanaam yow ba biir gendarmerie fenkat bi nga doon nii rek ngeen bëgg a dëkke te ñu xamal leen ñu xamal leen sa yaay fii du ma ko wax sax du ma ko wax naa bàyyi noonu xam lépp wax lépp baaxul boo ko defee ñu tam la waaye sa yaay fii yow li nga def yëpp yëg naa ko yow yaa bon papa yow yow amoo lenn looy def lu dul mët ne la dama takali ma Zeyna yow nga dem takal Zeyna sa bopp. mais comment yow kan ngay waxal man ngay waxal. yow lay waxal. mais ci yow yaa rew pour lan ma yurne pour nga takal ma xale bi yow nga dem takal Zeyna sa bopp. mais Zeyna bëggu Zeyna bima demé demee man la bëgg ma takko qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de mal waxu ñak fayda yi ni Zeyna bëggu man la bëgg fayda. may wax nga nan Zeyna bëgguma yow la bëgg xawma lan ko ko ah, affaire da nga sol sama dal mu jot la nga taxaw to lo nga man ti da nga wax lu la neex amul lo man sa bay la te sa bay gis nga keur gi man mako monter man maa la duma sa morom na da ngay wax ak man di yu di def ay ay ay ay affaire da ngay mala amul bay ya ngi dégg li la wax dama la yónni pour nga takal ma xalé mais pas pour nga takal ka sa bop ñak fayda yow man ma la sour sax yow. ah da nga sour len na la ko wax de dem nga ne dang koy tak mais jappal ne que Zeyna du dugg ci bir waxu lo dag di ma ko di refé yow man ma la sour yow dama la sour keur gi mako mo moom te buma ma seetlu dara ak na fi mbay di nga génn ci biti yow ya xamari di rewaye c'est de bonne famille et de mauvaise réputation tu vas avoir de quelle place dama soxla ba kii dugg ci kër gi rek nga xool ko yow waye ndaw tiaga de mom tiaga rek lay doon sama keur nak giso fi kenn kuy sollu gàtt ba tax yow nga war ñew di fi sollu gàtt ya ana ya ana wa ay yow nak jox la sama sey yalla ko tak ci aras takuma ko depuis bima duggé ci kër gi ba tay jamm salam tayau nak jalousie mu ngi lay bëgg Nah jàpp sax sol marinière robe man nag maa toll sol lu gàtt def ba mu baax man maa ci toll waaye nag daam lu may rus muy Nafi Mbay bu ma rusul Mbay di nga xamni nopa mak borom sa jëkër mako yob Iran ak Irak xam nga bon rombu nga dëkk ay at du mbokk ni da xarit ni da andando bu sa nday boné nak lu bon rek ngay def ku ne sa nday bon rek dafa nga mer rek dafa fekk lam def jagut waaye man manes man manes na maa classé ci fenn ndax man fekk naa sama morom ma dugg ci moom moo yow doom yow mi fekk paa bu dee bi sa moroomu baay nga dugg ci moom sëy ak moom ndax lan bii xaalis sa jëkkër man lay war man ñaareel xaritu jëkkëram maa koy defal la neex Enggak sama-sama. Coro, sama niser de ak mai yi may paa nag plan bi la gën a choisir mu ko defee rek balaa sama teeluwaar loolu ëpp na Mau kok ini deh? <laughs> Lu lagi buat kayak. kay waay Samba war na la nag ma yàq nga ne dangaa tëdd noonu xaw ma da ngay sinap jam. ma looy def yow yaay Yo, yow kuy wër jaam ya, na arrière ya. ndeke boy juga. Na Nafi Mbaye sama jumelle sama jumelle ndeke tuh yo mosoo na Nafi Sampai sam papa nga ber? bët mais yàq nga ko ndax affaire du yawak sama yaay yaag man la di nga xam ni kër gi fii damay toog ci sa xef yi yow du ma la may jàmm du ma la may salaam loolu def ko sa bopp. soxna xam nga moo la metti bu guddi jotee sa papa maa koy riitu ci néeg la. da ngay dof dof lu maa la gën a nekk bandi gën laa nekk peegal gis nga ba ma moytuwul lekk laa lay def. Zena. Ê. Zena ê. Ê. Lắm mong hệ không? Vô đây bảo đi. Zena. Hả? Hả? Sana mau mbet. Langa jota sana mau lembet. Sana mau nyofi du mau walu nyau lu nek. Langa jota mau lek lu nyau. Ada sana. Dama nga xaar ma sa biir nekk maa ngi ñëw jàllal sa biir nekk soxna dina xam ne fii amul soxna soxna soxna. sa tante lan nga joxe ba nga koy mbéy yow loolu yaa ah, soxna. Zeyna Fall sama yaay ma def ko comme xaj. yow eh, da nga réew ah yaa ngi dégg li ma wax man du ma ah, bay wax ak yow ngay ngay ngay ragal def ay yëf sa xam ne maa la gën a may sa baay. dama eh. eh, imbécile waay ah. Eh, xoola eh eh bàyyi jàmbur laa eh waxuma ak yow ah. doo ko def dara la laal xoola man du ma sa morom laal ko rek yaa ngi dégg ma la eh, soxna yow yaa xamadi waaye nga naa ma laal sa loxo bu ko laatee dinaa la dóor ba nga ko dee ak eh, yéen a rew waaye jaxamadi dara nga ko dul def dara tous ah yow da ngay affronté léegi waaw yow da nga may affronté lenn laa la ko wax de gis nga gaale fii yow dootoo fi am jàmm dina tàng dina métti gaale bii nag nga nekk Zeyna Fall sa tante lay doon et sa tante lay mën a nekk dëgg la respecté respecté vous allez affaire avec moi yow yaa imbécile waaye te reew fat yow dinaa xam lu may def ak yéen yow moom de ta part je vais porter plainte à la gendarmerie parce que yow mi te commence à semer du mauvais coton merde yéen yéen a reew waay seen enfant droit bi seen tante am la am day fanaan seen tante seen yaay di fanaan qu'est-ce que c'est ça merde war naa la de yaa toog nii ràcc sa garambu bu ne sëriñu tar yaax sa doom yónni la nga demal sa bopp daal di def la la neex ñëw toog ma ne déetawaay nga ne dangay dóor soxna ñu ne déetawaay nga ne da ngay yóbbu Cisco police ah cam mënoo xam nga nooy def plainte bi dangay jiital Anna mbay ci kaw man mi leen meññ dangay def Anna mbay ci kaw doomi El Hadji Badara mbay Kaba man bay Moussa Diamacoumba Sène mii mbay Moussa Diouma Kumba Seen. dama ne nga déglu ba ma pare maa war a wax maay wax yaa bon yaa sew yaa yées yaa mees xalaatoon naa leneen ci yow séntu naa leneen ci yow lu lii waaye nag ku bon moom ku bon rek lay doon te yëfi ku bon rek nga fi def affaire yi wëyu rek nga ma jaay fi mu toll nii yow yaa yées sa na bu yàgg. jërëjëf mbay Kumba Seen lu mooy sa bàkki maam. ba mu bari doole. da dama ko wax ba senegal gep diko deg dégg. waaw li nga wax yep deug la man ma tay. waaw mag bu ma tay rek lay wax waro nga dépasser man ma tay ndax euh, dem tak sa xaritub doom. degluma yow do rus sax. te su fekke dafa am lenn lu ci naqadi tu prends tes bagages et tu prends la porte. tu prends la porte nga ma damay teud may la da ngay tëdd xanaa bu ma waxee li bëgg wax ba pare. fuma neex sok fay dem. vas-y. sa xaritub doom. Mhm. ak sa doom. di sa moroomu doom. ma tay ñepp di nga war nga waroon ko xol bët bo xamanteni ni képp ku ko gis rek ne ah domi domi domi Ousmane Gaye l'amour n'est pas Ya, bon ya sew ya yes wa mag kay bu rusé bu rusé da indi ay proverbe bam di tek yow gatcha la japp motax nga indi say proverbe bu naan ay l'amour n'a pas d'âge ak l'amour n'est pas compte lo togu rek xolal lima togu sa yónneewu ci ko concerné wu la sama dépense quand même sama dépense la yow doonatul maa ak yow fim ton ni de ah. say dom motax fim ton ni man ma tok ni di am sax lima expliquer ak yow man samay doom laay dépensanteel mais pas yow ndax man du wax ak magatu wëyu merci te yow wëyu nga pare na hmm? pare nga wax nga ba pare prends la porte j'ai envie de dormir là euh, je pense que ginaar nga togg ah boo indi plat nga def ci ketchup s'il te plaît parce que dama wara def lune de miel té voilà ana bay prends la porte কি Suleiman. আল্লাহ সুলেমান dosa je lan lan laay changé def suleman yaa ñàkk jom yaa ñàkk rëcc rëcc yaa ñàkk rasu suleyman sa sama kër di ma xas de xas ma damay wax dama lay wax sama kër di ma xas bu fekkee Cisco moo la wax loolu bu Cisco waxul ñëpp koy wax Cisco moo la wax loolu koy wax Youssou Limane man daga yakal ni ku woddu rek pour yoon loolu nga yakar Souleymane man daga mën a jigen jigéen man wañu sa galaat ñu jam la yow sa jom bi ngeen ma jooje ndate ah amoo rufukaay amoo lenn lenn lenn lenn lenn bi mako déggé dé de dama ni da xotina ndax ma sa jikko ndax yow daal jigen ñepp rek yaa mom ay wa yaa ma gën a jàng fuuf lan la wax ci alcorane yàlla moom moo ne ci alxuraan koo tane da nga koy dimbali xale bi nag dama koy dimbali te yàlla tax looloo tax ma takk ko eh. Cisco mënul ci xale bi dara te xale bi dafa bëggul woon Cisco sax dak Cisco bi ma ko laajee dafa ne xale bi xamante na nii waaye dara dara nekkul suñu da nga koy dem ñaani noonu man ko mariage forcé fan la am ñaata yoon gis xale bi ñëw fii seet si Cisco Cisco la doon seet si wala wala wala tax moom xam si Cisco xam lu ma lay yëgal ah. gis nga dafa te nga ma ñoom bi kam ah, tam bi ah, naa la de xamal nga ma waaye xamal naa la de yaa ngi may waxal nii waaye xamal naa la de. petit ba grand. nii rek xamal naa la de yow. loo naa la de. loo ma xamal petit ba grand yaa ngi waaye yow yaay ba doom yaa koy yaa ngi koy kii de ëmbal nag. Hmm. <laughs> man mii man mii waaw bàyyi ma waaye li xew fii eh, eh. takk suuf. juróom benn jabar. waaw waaw li suuf maa la xamal wala yaa ma xamal. <laughs> xamul lan yaa ma xamal moom wax dëgg yàlla. xamal naa la yaa ma xamal de. ci prix <laughs> yaa ma xamal. xamoo ma dara nag man da nga may sasal maa la xam yow. waaw dëgg la moom yaa ma xam. ci prix ban béy ba gëddee. ñi woddu ñëpp mënoo leen jeexal. yow sama kër nga ma fekk de. waaw dama lay wax rek. sama kër nga ma fekk dama lay wax rek. maa ngi àgg kër ga nag loolu rek laa doon wax. man de réccu naa sax li ma la xamee. yàlla ah. seede na loolu. Hmm? petit ba ponkal dana changé. ci prix yaa bon. dem naa man. waaw baax na jërëjëf waaw ah, moom kay moom moom di nga dem moom bu dee nit ñi lu xamal wax ko rek di nga dem li ma la xamal moo ëpp li nga ma xamal foofu waaw ah, fii la sa jabar tukki bàyyi yaayam ci kër gi nga ëmbal ko loo wax bi mu ñëwee da nga ne takkoo baa ko ëmb takkoo nu muy ëmbalaate loolu lépp ñu xam ko noppi ngay wax ya, war ah. ngaa wax. kër gi de neexuma dara neexuma ci Zeyna sama yaay kum doon moom it nga comporté comportement bu mel nii t'imagines kan la sa jëkkër takk sama xaritu doom kan la sa jëkkër takk sa doom a ko yónni woon mu ñaanali la jàpp mu ñaanali ko jabar moom mu jël ko takkal ko boppam mais neexul sama yaay dama koy comprendre parce que day résume ay colère am mais Zeyna yow kan ku la fekk fii ngay jàppante ak sama yaay jàppante ak soxna lan lay wax man ak yow petit ba grand ñu koy ànd Zeyna dégg nga lu nekk en cause de man man dégg naa lu nekk en cause de yow lépp ñu tenir mais li neexul dara umpale ni yow ak Cisco la waroon doom yàlla weddi sa diggante ak Cisco ne sa diggante ak sam papa doom you neexul ci xol ma accepté fekk si la ci fekk si sam papa and ak yeen nak zena xam nga kër gi lan la fi déggagul dem la ndax sañu ñu maa tam mag ñom ñoo bok xam nga benen bi moy lan bir na yàq ndax teguñu ci seen goor di ma seet mais kon heure bi man gasax bu yag zena sama yaay sa yaay la Budul dara man na fi mbay nga rus nga xol yan effort lade, def yan sacrifice la def ndax yow soxna mën nañ ne ñoo bokk génération certes mais sama yaay sa yaay la Zeyna yow lii waru la danga ma war a siggil Zeyna danga ma war a sagal danga war a tax tey jii nii non ku socc woon bañ a ree juum nga torop tey doom yaay juum nga torop Nafi li nga wax lépp dëgg la li moom lépp dëgg man maa juum rek ndax sa yaay moom ak war waruma jotee ak ñoom ndax kum sa yaay moom kum doon moom tamit nii rek ngay réagir maa ngi jégalu bu baax a baax te xam ne dootul amati. je préfère mu bañ laa dalati parce que li ñuy dund nii lan moo ko gën a metti Cisco huit heures ci suba lay taal rajo bi xaw ma ay musique gu ñàkk lay teg man xaw ma musique gu lan lay teg yokk ko kenn du dégg ndax lan bëgg am sam pour sam papa wax mu attaqué sam nag li ma koy wax wax naa ko nee naa ko na yokk musique xola ba immeuble bi wàcc mais bu mu ko tontu bu mu ko faale parce que du du ñoom ñaar lamb boolewu leen Cisco lamb boolewu ko ak sam léegi yow yëgal nga dellu sa appartement balaa sam papa ñëw day xam ci lan lañ doon wax. ok. waa soxna. dama seetlu sa papa mu takkee jabar ba tey kenn gisatu la fenn nga mel ni ku ci rus te loolu du fi xas du fi mbañ Anita gis nga sam papa li mu def diine bañu ko ndax am na droit am ba quatre femmes li ma jaaxal kay lenn rek la mooy xaritu tay lan lañ da ngay ànd ak ñoom yéene leen ñu jël seen bët bi teg ko ci li nga am denc li ñu yor ba pare bokk ak yow li nga am man Zeyna Fall daf maa yee ci àddina ndax Zeyna na fi jaraloon na ko lu ne defal ko lu ne Zeyna amul lu muy def lu dul jël bëtam bi teg ko ci baayam lii doo nga tax ma ragal xarit waaye du dara soxna ñaata baaraam laa la tàllal juróomi baaraam baaraam yi di wutee noonu la jëmm doomu aadama yi wutee te bu ñëpp yemoon am ñu gedd seeni cër xarit mu ngi am ba léegi fa ndox daan taa boo fa demee ba léegi fekk fa tepp tepp loolu rek yow sëy si nga ci kër gi nii ba ñëw def faax nii ñu jox la appartement ci kaw yow yaay traître yow yaay imbécile vrai doomeram mbaam bi nga doon. Cisco sëy fu ko yàlla tudd rek lay am. waaw mun na fan mu naan sëy fu ko yàlla tudd. yow yaa ko créé lii yëpp yow yaa ko créé traître bi nga doon sa moroomu jeune yëpp di xool seen moroomu jeune di sëy ak ñoom yow ngay wër sa moroomu bàyyi naan dangay ngay sëy ak moom. bu dee may paa laa bëgg nag. mer bi mu naan paa laa nëb len rek laa lay wax gis nga gaale bi mën nga taxawaalu daagu fu la neex mais gis nga sama buntu néeg lu jëm côté boobu noonu romb nga fa mooy dama lay rey je t'élimine de la vie laa la wax déggal lu ma la boo ma lekkee lekk jabaru jàmb waaye yaay man maa sàkkoon waxtaan bi di jéggalul bu baax parce que maay seen taaw bu jigéen même bu fekkee Cisco mooma mag ñëpp xam nañ ni ma mel ak sama papa te yaay coow yi sew yi ci kër gi bari na xoolal kër gi ni ñu meloon kaf fo re, lan tak tax tey ñu bëgg génn ci rythme boobu noonu koñ bi ñëpp ñu naw koñ bi ñëpp ñu respecté tey fi ñuy àttee rek dañ naan demal kër Souleymane lan moo tax loolu te dara waralu ko lu Zeyna mi sama papa takk yaay wujje du dara bokk wër sa képp la te Zeyna mi sama seex la sama xarit la yaayam bi muy dellu seen dëkk man la ko dénk kon am na loo xam ne dul ko mës a def yaay jappel Zeyna mi comme sa dom moom mu jappelo comme yaayam ta xamni yalla bolen ko ak sam papa ba pare dama la ñaan rek ngir yalla papa limo wara war waxtan yaay dimbali ma rek dama la ñaan ñu bàyyi lepp mu set sisko xam nga li tax ma woo fi fii sa néeg wowuma la sama ma préférer andi la fi ci néegu bon bi xew sam papa duñ fi foggé ndax mi ngi ci salle ba tok mom ak sama yaay ak Nafi ak Zeyna di réunion. lan mooy sama yoon ci ay seen réunion ñoom sama yoon nekkul ci seen réunion yaa ngi may dégg yow kon loolu moo tax ngeen nga woowam fi. doo def ndànk. wax nga ni ba pare kenn umpale woon ne Zeyna Fall ak moom kese laa yemale waaye nag bu fekkoonte ne bam mu ci raxee lim ciy rax ñëw na tar rek la jox ma cër comme ba ma joxoon dara du xew mais nag dafa ñëw bëgg a yëg ci sama digg bopp bi duma ko nangu ci xale bu ndaw. man lu ma wujje de ndax ñun suñu famille sëy rek lañ xam te sëy rek lañuy def waaye nag xale bu ndaw du ñëw fekk ma ci sama digg donkaas yi bëgg koo yëngal du ma ko may. yaay eh, bàyyi lu ah, maa ngi lay gërëm Nafi Mbaye man sa mbiru yaay sax dama ko waxul ndax sa yaay moom jërëjëf. sama yaay noonu jërëjëf. man sa yaay sax ay mbiram dama ko waxul waaye sa yaay bu demee ba koo ak soxna di mel ni man duma seen kilifa ci biir kër gi ñu ngi koy yàq. yaa ngi fàtte keroog ba ma leen di wax naa leen am na sëriñ bi fi ñëwoon di seet Zeyna. na fi di ma wedd ne ma dangay fen. maa jël numéro ba woo ko. jotoon nga ko. jot naa ko kay. <laughs> yow booy loolu arme la arme bu grave la numéro bi yaa ngi moom ba tey. mi sama téléphone. waaw génneel numéro nga woo. damaa ragal. eh génne lii nga wokk luy damaa ragal jëlee rek nga wokk léegi nii ne ko mu ñëw fi. kawal. allo. waa Oustaz Sarr man la soxna maa la doon woo keroog mooy ki nga fekkoon fi naa Fall di sëy waa instant yi nag sam papa ak sama yaay. ak sama sœur boobu ma la doon wax ak Zeyna ñu ngi si saal bi di réunion léegi ñëwal léegi léegi léegi mu fay la sa xaalis. waa ñëwal léegi dégg nga waa baax na maa ngi lay xaar. yàq naa foofu sur 5. tey. Hmm. bi dañuy abal kàlle bi. man de bu ma abalee dina ma neex trop. bu ma leen yónnee sax ñu ñu cee ba tuma ñu def ma yëpp. yow yaa ko waral. waaw ndax maa leen jur. tey duma seen morom seen baay laa. waay yow war nga sétane Cisco mi sa taw ak soxna mi sa cat. ma len djuf man yaa ma jur. waaw kenn weddiwul loolu nga fete andal ak mom yaay man bis ma len fekke ñuy wax ak sam papa dara dinañ ma jot. lol waxam jotagul man duma sétane ken di jall sam papa. kon baxna ana mbay. sa papa ma ndika dépasser gis nga ki fama ko jëlee bañ di fe fu gëna a garaaw foofu la jëlee say nopp bima lay jël seen kër fa ngeen doon fa. ah euh, papa ngeen ah papa garaaw say nopp kii bi koy jël ba dem sa kër maam di jël fi ma fekk du ma ko nettali maaleykum wa rahmatullah nañ def ana waa kër alhamdulillah mbokki fan sama mbokk la kañ la mbokk ak yow kuñ leer bi seen kër man borom sama xarit la sama jabar papa la ku bonangi ah ku yées a ngi ku mun a tas mbokk moo nekk jëm ji yaa jëkkër dama lay baalu ak bu baaxa a baax nga baal ma ak ndax li nga takkee jëm ji gannaaw yàlla ak yonent bi mana hmm? ndax dafa dafa ñëw ba sama kër mu ne daa liggéey ba sonn amut dara moom mii ba paré néna na wo len ko si dara. Eh. sëñ bi baal ma de balaa ngay def gis nga ki ki mhm. waxuma sax bi mu sëy sëy ci kër gi waye laata muy sey ci kër gi Mune bu nek dina jox ki ñaar fukki junni mu jox ko ngir jàppale la kër. Mhm. mu né na ñew ma liggéeyal ko nga ko. Mhm. Ah. ah naka njëkk ma xam ne lu jikko dafa ñew bimu ñewé ci kër gi. ne ma bés boo ma liggéeyalee ba ba mu takk ma ba mu takk ma ma dugg si kër gi liggéey ba maa ngi ko def si lu weex ñamum soow mu ne jabaram nekku fi ay doomam nekkuñu fi te moom moo lay toggal ma ne ko def ko ca eh dimbal ma Zeyna kon jour bi ñuy dem xew ma man ak sama yaay ma ne la sam papa laax la bëgg toggal ko ko sa laa def mbir ma laaxasoo bi nga ndir sama papa na. mu war maa jox téeméeri junni benn bu ma ko woowee du ma wuyu bu ma ko woowee mu coupé ma te daf maa waxoon ne bu liggéey bi jàppee ba ba ba ma dugg si biir kër gi ma ma yokkalaat la xaalis ne ma pour nga liggéeyal ma pour ma déddale la ak say doom hmm? ah. jarul ngay ngay ñele joo ka def yi ay façon. Zeyna moo la jaral bi jërëjëf. kan moo si Nafi. Nafi mooy ne. sa tur mi ngi sama kër. kan. yow mi jox na ma sa tur yow la ma njëkk a jox sa tur. beneen ba sa topp mu joxaat ma beneen tur soxna. Ah, kooku sama caata di waya yaay xanaa man duma sa doom bi ya billaay mbay maa la jur sa baay ngi nii toog waaw kay yéen ñëpp laa jur waaye sa baay nga féeteel mu ne kooku it turam mi ngi sama kër ñettel ba mu jox ma ben benen tour bi ñettel bi bi ñuy wax euh simco xaw ma wa eh wa sama taaw. wa mu ne dal na len liggéey déddale len ak seni papa bo la nga xamante ni yang yaangi def lolu si say doom dootoo ko def dang ko koy defal mom mi ku yes nga. nga may xol di di kii. jërëjëf yàlla na bo boo ma bàyyoon ak moom nag ma rey ko. déedéet ëpp na def seet ci yalla jere yàlla jërëjëf. jërëjëf jasaaka xayral ma jef sëñ bi wa jërëjëf jadi na la yàlla fay. waaw am ni notalee ya, ko paas. jërëjëf ñu ngi iya bu baax. sama restant xaalis nag na ma jox. dina la ko fay allah na la ko fay na la ko fay. wax leen. yow yaa bon bu ma yow yaa bon. waaye nag àdduna nii la àdduna lii moo tax ñiy duñu gaaw a yërëmaate képp yërëm defal lu baax mi ngi yow ci ci lu bon yow lo ñak ba may liggéey yow da nga waron fekk fu muy liggéey wala fu may liggéey nga défendre ko ndax fa ma la jëlee waaye nag li bëgg lén képp la duma la door duma la saga ndax sequñu ko waye kër gi man mako mom limu bëgg moy sa bagage yi ci kaw ba ci auto bi ma la jëndal bees bërk demb jëlal lepp may na la ko ci xol bu sét té na génn kër gi mm. ma naa ta baat duma ci nak papa di duma ci jaaraat papa sutural ma rek ngir yàlla papa Zeyna man kessé la am ci yaayam nekatu fi man la ko denk ay papa dimbali ma rek ngir yalla papa ñaan na la ngir yalla génne kër papa Zeyna di nga yaq sama aduna dimbali ma rek ngir yalla da joom Zeyna da joom li du jikko papa li du jikko bal ko ngir yalla ki bu ñu mënoon ray, dafa ñuy ray, bu ñu mënoon dafa ñuy ray xawma nak nan la lay def kër gi nak man na fe nek lu ko neex mu def waaye baat sama diggante ak moom moom jeex na bis ni ki tey. nga bàyyi mu dëkk ci kaw kii amul fenn fu muy dem. waaw kii dafa mel ni juróom la Pape may naa la ko jërëjëf.